asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaare waaye di jiital ci nuyoo bi ak ziyaar bi Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér naka noonu lañ koy ñaanalee képp koo xamante ni yaa ngi ñuy bàyyi xel ci réew mi ak ci bitim réew saa su nekk waaye rawatina ci jamono ji ci waxtu wii ñu jàkkaarloo ak yéen ci wàccaayu li nga xamante ni mooy bisub xasida bi nga xamante ni kuréel kennal Serigne Touba jaalibatul maraxib ci njiital Serigne Abdou Ahad Mbacke ibnu Serigne Cheikh Abi mu ànd kook Serigne Amsatu Mbacke moom Serigne Soyebu ci wàccaay woowu la nekk saa su nekk. ngeen gis ne depuis fan yi yëpp ñoo ngi leen di indil ay wàccaay yoo xamante ni ni nga xamante ni noonu lañ nekkee ci bis bi bis bi nag doon la 17 mars incha allahu rabbi samedi mu doon samedi bii di ñëw bu dellusee bis bi nag doon lu mat waajal ndax bis bi képp koo xamante ni yaa ngi ko doon faral di teewee rek gis nga solo si gis na njariñ li nga xamante ni it murit yi nga xamante ni ñoom ñoo daan bàyyeekoo fu nekk niñ ci daan bànneexoo ci xasida yi waaye tey ji nag ñu toog kenn ci soxna yi nga xam xamante ni bokk nañ ci ñi nga xamante ni dañuy jàpp ci bis bi jàppinu Pastef nga xamante ni saa su nekk bu bis bi ñëwee dañuy bàyyi seen yitte bàyyi seen lépp ànd ak sëriñ bi ci bis bi ba bis bi jàll muy soxna na bu Thiam mu doon borom Pastef lool macha allah xam naa ne duñu guddal dañ koy jox mu nuyu bokk yi nga xamante ni ñoo ñuy bàyyi xel ci réew mi ak ci bitim réew bu noppee ñu dikkaat ak yéen ci suñu yeneeni laaj yi nga xamante ni bëgg nañ ko koo laaj ji bismillahi di julli ci yonti yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa di sant cheikhul xaddiim suñu yaakaar tey ak ëllëg di tàmbalee ci sëriñ tubaa di yem ci sëriñ tubaa ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaare képp kuy teewlu fii ñu nekk ñoo ngi lay nuyu di la ziyaare di la jox sa wàccuwaay di ñaanal sëñ Sidi Matar ak njaboot sëñ tubaa gi jiitu yëpp yàlla na yàlla yokk seen leer te taasu seen barke te fayal ñu leen di ci boole sama sang bu baax baa njaboot sëñ ab sëñ tubaa gi ci barke Cheikhul Khadim mm-hmm. di ñaanal sëñ Muntaxa Mbàkke xalifa général des Mourides yàlla lépp lu mu yéene woon a liggéeyal sëriñ tubaa yàlla na def lu kawe njortam te ñu ànd kook moom ci barke Cheikhul Khadim di nuyu mboole mu jullit jërë ngeen jëf. jërëjëf euh, soxna Seynabou ci nuyoo bu matele boobu waaye mu mel ni ñu ngi wàcc bisub xasida kuréel kennal Serigne Touba jaalibatul maraaxib ci njiital Serigne Abdoul Ahad Mbacke ibnu Serigne Cheikh Abi mu koy ànd ak Serigne Amsatou saa su nekk. gis ne da ngeen ci am ay taxawaay bu baax a baax a baax sëriñ bi boole leen ci liggéey bi ngeen koy ànd ak moom ci àndin wu sell woo xamante ni ku yàgg dégg seen tur rek eh, ci li nga xamante ni mooy kuréel gi xam ne da ngeen ko ànd ak sëriñ bi te jëmmi sëriñ Tuubaa ji kese tax ba tax lii nga xamante ni moom lañ koy waajalee muy ay waxtaan ay jataay yoo xamante ni dañ koy séq ñenn ci ñi nga xamante ni it mën nañ ne ay membre lañ ci kuréel gi ngir seen pasteef ak liggéey bu bi nga xamante ni moom la am ci kuréel gi ngir ñu wax wax ñu dëgg dëgg dëgg dëgg liggéey bi sababu solo si buñ ko doon wax duñ fi jóge waaye xanaa rek fi ñuy fi ñuy jëmale suñu laaj bis bi ñëwati na mu doon bis boo xamante ni fépp fu murit nekk ci réew mi ak ci bitim réew yaa ngi koy bàyyi xel bisub xasida boo xamante ni murit yi nga xamante ni ñoo nekk ci réew mi ak ci bitim réew di ko bàyyi xel bu baax a baax a baax ngeen koy ànd ak sëriñ bi bis bi mel ni lu ñëwaat ana waxtu wi bis bi di ñëw ngeen ànd ak sëriñ bi ca wàccaay week lépp lan ngeen yëg ak ban ambition ngeen am dëgg dëgg dëgg ngir waajalee ko bis bi ànd kook sëriñ bi saa su nekk. waaw sama sëriñ sama jëwriñ loolu nga ma laaj xam naa ne lott nañ sax ci tontu ko niñ koy dundee waaye dañuy feeñal rek loo xamee ne nii lu nekk suñu xol la bis bi moom ni ñu ko yëge mooy bis la boo xamee ne nii eh, nit wootewul bis bu ko ëpp bu ko féete kaw nit wootewu ko tey sëñ Abdoulaat Cheikh Abi ci moom laay njëkkee ba pare. boo ko xoolee dangay xool maa ngi koy jégalu at yu néew waaye boo ñëwee ci bis bi doo fa fekk euh, bis bu tuuti dangay xam ne sëriñ tubaa woote bis bi bis bi sëtu bisub sëñ tubaa la waxi sëñ tubaa lañ fay wax te euh, bisub xasaayit ku la ci woo rawati nag ku mel ne sëñ Abdoulaat Cheikh Abi muy ku ma bàyyi xel man ndax léeg-léeg dinaa ko yëge ni nag ku tedd kii ne woon maamam sëñ Abdoulaat am naa ci moom yaakaar sëñ Abdoulaat Cheikh Abdi nañ ko bàyyi xel te ñaanal ko mu yàgg fi te yàgg taxawee bis bi ñu yàgg koo ànd ak moom Mbàkke ndax ku lay woo ci bisub Sëriñ Tuubaa saa boo nee woote yi bari na maa ngi jéggalu ñun ñëpp ñi ngi sant Sëriñ Tuubaa waaye nag am na loo xame ni nii war nañ koo segg suñu digganteeg sëriñ bi ndax saa boo wooyee taalube Sëriñ Tuubaa yi ne dama leen a woo ci bisub Sëriñ Tuubaa bu ñu ñëwee war nañ faa fekk sëriñ bi kon loolu maa ngi ci jiital sama bopp ak ku ma ko sañ a wax nañu bàyyi xel ci loolu wooteel sëriñ Tuubaa ñu wuy si nga wone leneen lu dul sëriñ bi loolu murit bu ne war nga koo daw sëñ Abdoulaye Cheikh Abi nag man damay tàmbalee ci sama jëmmi bopp daaw bi ma yegsee dama ne tëll masaalikul jinaan waaye jël laa dugge toog tuuti ma xam ne bu yàggee sax dana metti ci man ma génn dem toogi benn barab génn ci mbooloo mi euh, bis la boo xamee ni nii daal ñun ñëpp ay murit lañu di ay taalibe ñun ñëpp ñuy wooteel Serigne Touba di woote bisu xasida waaye ku la woo ci bisu xasida loo wuy ji lu ëpp lu féete kaw bisu xasida boo wuysee ba pare nag boo ñëwee fekk fi lañ la woowe loola meneen mbir la ci bis yi bisu xasida lañu sëñ Abdou laat Cheikh Abi woo boo ñëwee xasida nga fay fekk xasaa xasaayit yi waxi sëñ la te jàpp naa ne bis boobee de ku ci mës sa ñëw sax man ngaa ñëw nga dañ kumpa nga xool ba xam boo ñëwee di nga fa fekk leneen lu dul xasida doo fa fekk leneen lu dul sëñ Tuubaa man de gëm naa ne li ma fa dund ci at yi ma ko ànd ak moom bis yi bari na waaye mën naa wax bis yëpp waaye bis boobu de man gëm naa ne sëñ Tuubaa nga fa ndax li mu ñu woo raxus ca boppam sëñ Tuubaa kese ju raxut dara dara dara dara mooy bisub xasida boobu sëñ Abdoulaye Cheikh di woote ci ci naan jërëjëf euh, soxna Seynabou loolu leer na mbokk yi nga xamante ni ñoo ñuy bàyyi xel dégg ngeen euh, fi soxna si daanale naka jekk loolu moom doon na loo xamante ni xanaa ku egseegul ci bis bi waaye ku fi ñëw rek xam ne sëriñ bi moom li tax ñu ne kuréel kennal sëriñ Touba. kennal Serigne Touba la ci xasida yi wala waaye kennal Serigne Touba ngir di ko liggéeyal li soxna si wax lu mat a bàyyi xel la képp kuy ñëw ci bis bi waxuma la dara waaye taxawaay bu am solo mi nga xamante ni it murit yi nga xamante ni mooy kuréelu kennal Serigne Touba ngi koy ànd ak Serigne bi ci organisation bu jaar yoon bu fa ñëwee sa day sedd bu baax a baax a baax a baax kon soxna si foofu tey jar na taxaw tuuti ngir bokk yi nga xamante ni ñoo ñuy bàyyi xel ci réew mi ak ci bitim réew ak ñi nga xamante ni mosuñu faa teew ndax day mel ni fi nga daaneel tàmbalee bi na waaye wuute na di tax mu wute nag bëri na ñaare kuy woote woo nit ñi ba ñëw nga fas yéene wan leen sa bopp waaye sëriñ bi moom xaside yi rek lay fas yéene di wane ak sëriñ bi nga xamante ni tey jii moom moo sàkk xaside yi nag karaamam du lu dul xaside yi kon loolu mat naa yaatal bokk yi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy bàyyi xel ci réew mi ak ci bitim réew fépp fu ab murit nekk rek nga bàyyiwaat bisu xaside bi bu baax a baax a baax xam ne sëriñ Tuubaa kese tax sëriñ bi di woote sëriñ Tuubaa kese moo tax sëriñ bi di ci sonn di ko ànd ak bokk xamante ni ñoom la koy àndal muy kuréel kennal Serigne Touba ci euh, njiital am Amsatou Mbacke moom Serigne Souhaïbou ana lan ngay wax mbokk yi nga xamante ni ñoom ñoo lay bàyyi xel ci réew mi ak ci bitim réew rawatina murit yi nga xamante ni ñoo féete fii ci Ndakaaru sama jawrin li may wax euh, mbokk yi fi euh, nekk bitim réew ak rawatina ñi nekk fii ci Ndakaaru dama ciy jiital sama bopp wax ci dama ciy jiital sama bopp boo nee Ndakaaru itam Ndakaaru mooy mooy Tuubaa la ñuy wax la ñuy njëkkee ñu nekk Touba te Touba moo jur fépp fii ne danga naan Touba ne Touba Ndakaaru Touba France Touba Espagne Touba Amérique kon mbir mi Touba la du Ndakaaru Touba la lu waay sori sori sori foofu murit mën a nekk rek ëtt ba nga nekk Touba la te fenn soreetul nañu ànd ak sëñ Seex euh, sëñ Abdoulaat Seex abi bis bii muy woote dama ciy dellusiwaat yaaram bis yi bari na waaye am na ci bis yoo xam ne boo yegsee jarul ñu lay wax yow ci sa bopp yaay yëgal sa bopp sëriñ bi bu dee bëgg nga sëriñ tubaa di ko dund yaay yëgal sa bopp sëriñ bi xam ne fii sëñ tubaa ngi fi te sëñ Abdou Lahad ay atam mënoon naa woote ci xasida ba nit ñi wuy si ko mu wone leneen wala mu rax ci leneen waaye ni sëñ tubaa doone kenn kenn koo xam ne amul moroom sëñ tubaa kenn la amul moroom noonu la sëñ abdulaat joxe bis bi turam kennal sëriñ tubaa boo ko dee wax ci làmmiñ te yëgoo loolu mën naa oyof lool ci làmmiñ waaye lu sori la ndax sëriñ tubaa kenn la amul ñaar sëñ tubaa kenn la léppam loo xool lu ne rek mënoo cee gis ñaar lenn rek la te yaakaar jaam ñi cheikhul xadim euh, bi muy liggéeyal boromam liggey bu set wicc la bu raxul dara lu yalla ak bu yonentam mu jënde won ko lepp lu ñuy tuddi tudd Serigne Touba ba ci ak njabotam ba yalla def ko lim ko def lo xamé ni nii Serigne Touba mom rek bara diko ko wax mom rek a xam limu doon Cheikhul Khatim mom rek xam limu doon kon nak bo di ko wooteel dara lolé bu fekkente ne am nañu ngor te baña faté euh te yek tuuti ci liñ serigne bi defal Euh, man nga ko caa baña raxal dara ndax mom raxlul dara te raxul won dara lu yalla ak yoonte bi kon boko de wotel bis da ngay tambale ci mom yem ci mom lol nak boko de firi moy limu jox bis bi euh, tour muy kennal serigne touba kennal gi serigne touba kenn la te lepp ngi ci bir serigne bi Sabo boko kennale kennalee ber ko loo bëgg serigne touba fekk la fa nga nek jox la ko ñàkk dégg bi rek mo waral Euh, ngay woote ci sëriñ bi di ci rax yeneen ak yeneen ak yeneen Cheikh Ahmad Bamba mat na sëkk li mu doon ñi ko yaakaar te boolewuñ kook dara xam nañ ci dara te sama sëriñ yaakaar jaam ñi dara demul mag ñi ni ñu ànde woon ak moom toppe ko woon ak moom ba tey jii ñu di leen tudd benn jumtukaay bu nit doon liggéeyee demul boo ko wutee na ko war a wute rek am ko nan ko daan amee ndax sëñ tubaa du jeexal ka ko doon may jeexalul te saa bu ñu xëyee mayam yi di gën a tonawu kon yow yaay kennal sëriñ bi ngir la nga bëgg nga am ko amin wu rafet wu set wicc woo xam ne raxul dara sëñ Abdoulaat ci loolu la bokk maa ngi jiital sama bopp ak képp ku may dégg du ma tàmbalee ndakaaru ndax dama naan Touba ndax Touba fépp ngay wax waaye boo nee ndakaaru da ngay tàmbalee ndakaaru jëm feneen Touba fépp maa ngi soññ sama bopp di ci jiite sama bopp di sant sëriñ Touba ci boole gi ma booleek sëñ Abdoulaye Cheikh Abi ndax lim ma woo man ba ma wuy ji ba ma ñëwee la ma woowee laa fa fekk mu seexul Khadim maa ngi soññ ñëpp ci bis bi te xam ne sëñ Abdoulaye sax maa ngi koy tuub bokk na ci kéemaani sëñ Touba ndax boo xoolee jëmmam xam ne ndaw la te jamono ji loo yëkkati lu bari taxaw te xoolul dara lu du Seexul Xaddim maamam kon nañ leen ànd doyloo Sëriñ Tuubaa ànd ak moom ci bisu xasida bii mu ñu woo nga xam ne xasida ku tedd ki moo ko waxal boppam ne xasaayit mooy julli gi ñu wax ak yeneen ak yeneen du ay kiraamaam mais yuuti daam mooy kiraamaam loo xam ne nag buñ koy bind aras di jaayu kursi yi du jaayu malaaka yi di yëngu te loolu mën naa la cee jox benn exemple boo xam ne jàng xasaayit yi xam li sëriñ bi di wax ci xasida dinañ ko jàng di daanu ndax dañu ko mën a jàng ba pare xam li sëriñ bi wax ca lañ ca mën a xam am ci ñoo xam ne dañ koy jàng ndax mën koo jàng waaye xamuñu la ca sëriñ bi wax waaye kéemaani sëriñ tubaab bokk na ci ñi nga xam ne mënuñoo jàng xasida yi xamuñu law ñu cay wax mënuñu koo yëkkati te bu ñu déggee xasaayit yi seeni jëmm di toxu ba mel ne dañu ko mën a jàng wala dañoo xam la sëriñ bi wax kon loolu lu jara taxaw bàyyi xel la xam ne xasaayit lu mu mënul amul ku tedd ki nag moo ne xasaayit yi mooy kiraama am ko day ne sëñ Touba lu yëngal aras bu fa bàyyee nit say yëg-yëg sëriñ tubaa dafa am fu mu yem waaye lu yëngal aras yëngal malaake yi loolu nit taxul ñuy wax moo tax suñu jël yi ñuy wax du lu ñuy programmé dañ koo tayul murit boo gis mu daanu rek ku yéegul du daanu fa nga yegg ba daanu ci suuf ku fa yeggul mënu koo firi sëñ tubaa toll noonu sëñ ablaat cheikh abi nag sama mbokk soxna yi ñi miin bis bi wala ñu miin ko nañu ànd ak moom laxasaay mbokk murit sax laa yor du ma wax soxna mbokku taalube yi nañ àndandoog moom ci bis bi te xam ne moom dañoo woo ñu di ko wuy waaye nañ jàpp ne sëñ tubaa ñu woo ñuy wuy ji Cheikhul Khadim ci jumaam ji sëñ moom jumaa ji moonu moom moom moom xasida yi kon bis bi waruñu ko booleek dara ànd ak moom bu bis bu ñu mënoon a yokk heure yi sax dañ koy yokkulu ndax gën dund lañ fay dégg ci sëriñ tubaa man nag maa ngi ci dolli ne ca la ma ca gis dund koog moom at yi ba mu jàll boo fa ñëwee lu bis bi yàgg-yàgg doo fa gis lu du sëriñ Tuubaa te nit nag fu ñuy waxe ay waxam te sellal ko nam ko bëggee jàpp naa ne say bëta dul gis nit ka waaye nit ka soriwu fa ca jataay ba muy Ahmadu borom jaam ni Cheikhul Khadim maa ngi tuub di jéggalu wax ji bu amee dara lu ci dëng ñu jéggal ma ko rek te xam ne murit buy wax la rek léeg-léeg damay dawa dawa dawa dawa comme nii mu demee nii tey sax làqut naa ndax euh, saa buñ ma joxee rajo rek damay tiit ndax dam xaw ma lu may wax waaye bëgg sëñ Tuubaa gee ñuy yóbbu rek lu ci dëng rek maa ngi koy tub di ko jégglu te seedeel ñëpp nag ku may dégg ne euh, sëñ Tuubaa rek la ñu gëm moom lañu yaakaar moom la ñu wóolu moom la ñu doyloo kenn sëriñ Tuubaa ku ñu ci woo da nga ñu cee fekk ñu sawar lool bu buñ ciy ñëw sax duñu soli daal Mbàkke ndax Cheikhul Khadim euh, xol bu ñam bëgg sëriñ Touba moom képp amatul leneen luy neex sa xol lu Cheikhul Khadim Serigne Touba lañu yaakaar maa ngi sant ñëpp euh, di tàggu ñëpp di ñaanal sëñ Abdoulaye Cheikh Abi yàlla na ko maamam jàppale ba fan wi gudd lool te ànd ak wér mu yàgg koo taxawal ñu yàgg koo ànd ak moom. waaw di di di ziare sama sang sëriñ Cheikh Mbacke bu sëñ Abdou Hakim ak njabootu sëñ Abdou Hakim gépp di ziare sama boroom kër ministre d'état mbay Ndiaye di murit di ziare sama njaboot gépp ak mbokk taal bi di sant ñëpp wasalaam ba bis bi incha allah. jërëjëf soxna Seynabou Thiam ci kàddu yu matale yooyu mbokk yi yéen ko gisandoo noonu lépp nag doo doonoon ñu indil leen ko ngir waajal bisub xasida bu mag bii nga xamante ni mi ngi am fële ca Masaalikul Jinaan samedi 17 mars 2018 incha allahu rabbi nii rek lañ ko fas yéenee di wéyee ak yéen ay jataay yoo xamante ni dañ koo fas yéenee di leen ko indil di ko laytaay li nga xamante ni mooy bisub xasida bi kon xam naa fii rek lañuy yemande yemandek yéen di leen wax wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh nañ yem sëriñ bi fi ko war a yem kenn ku nekk xoolal li la sëriñ Tuubaa defal waaye nag yow lan nga defal